longo moo doon noonu bal bi maa ngi nii rek sant maa ngi nii sant yàlla bu baax Modou Lo ngoog Franc ñu sol ci bu

man li muy

Okay.